Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf mbiram drogue lëmbewaat dëkk bi réew mi quotidien mi àddu ci circulation drogue bi nga xamante ne mooy am ci corridor Dakar Kidira nee ñu lu ëpp ñaari junni ak téeméeri tonne cocaïne moom la douane teg loxo diggante mars 2024 ak weeru novembre bi ñu nekk loolee nag ñu jàpp ni xeetu drogue boo ko xaymaa ci wàllub koppar yéene kaay bi di ñu xamal ni dina jege téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards lii moo tax li quotidien gis ni li ñu tegaat loxo lu toll ci ñaar téeméer ak fanweer ak juróomi kilogramme drogue dure day fësal ni rek axe Dakar Kidira foofu la drogue bi di jaaba jonge Vox Populi di yëgle tamit ni drogue bi nga xamante ne teg nañ ko loxo ca diwaanub Koungheul boo ko xayma ci suñu koppar tollu na ci fukk ak juróom-ñett yu toftal juróom-ñetti milliards ci CFA te loolee nag mu nga bawoo ci dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo wër Sénégal la tribune ci opération douanière yooyee tamit la addu lu jege fukk ak juróom yu koppar moom la ñu saisir ci njëgu drogue ci diwaanub Koungheul producteur bi ñu ci teg loxo moom ca biti réew la bawoo yéene kaay des médias bi di ñu xamal ni enquête bi nag ma ngay wéy Le Soleil di wax ci enquête bi ñu def ci fausse facturation évasion fiscale naka noone wàllub guerre ci secteur extra bi yéene kaay bi di xam ne ni kon Sénégal day ñàkk lu toll ci juróom-ñeen fukk ak juróomi milliards ci suñu koppar at mu yàlla sàkk lii daal mooy li tukkee ci rapport bi ci Sénégal secteur minier bi ak fraude fiscale bi ñu ci nemmeeku ci la Sud Quotidien xëy tamit ni ki tey ji di dëggal ni lu toll ci juróom fukk ak juróomi milliards ci suñu koppar moom la at mu yàlla sàkk Sénégal di ñàkk laata exploitation pétrole ak gaz bi nag suñu réew nee ñu ba téeméer ak juróom fukk ak ñetti millions de dollars moom la doon ñàkk at mu yàlla sàkk te dara waralu ko lu dul fraude ak facturation commerciale fraude bi ne gàññ moo tax libération gis ni secteur hydrocarbure bi nag moom moo ci gën a fës ndax lu jege téeméeri milliards ci suñu koppar moom la suñu réew di ci ñàkk kàdduk Eliman Kan ci biir yéenekaay bi njiital Lex Africa gis ni ITIE donte mu ngi ciy def liggéey bu am solo waaye daal ay sañ-sañam la war a yokk ndax dafa mel ni doyut l'observateur moom doyalul ci coowal West African Energy ndax yéenekaay Futur Média bi mu ngi xamal ni enquête bi daal jamono ji bari na lool Abdoulaye Dia bu Sénico Abdoul Karim Diop bu Locafrique ñoom ñëpp dañ leen a auditionné homme d'affaires bi nag di Arona Dia ëllëg lañu koy xaar ci bu Senelec Papa Mademba Bitèye moom tamit jamono ji yoon ma ngi koy teg gët suñu naataangoy toftal ci ni garde à vue bu Samuel Sarr danu ko yokk te boo moyul nag dina am jàmmarloo diggante actionnaire yu West African Energy goge yor yor bi di wax ci rapport audit bi nga xamante ne cabinet Mazars def na ko ci boobule kuréel di West African Energy yéenekaay bi di xam ne ni kon moom Samuel Sarr mi ñu teg loxo ñu ngi koy tuumal détournement bu toll ci fukk ci suñu koppar li moo bët setagul source a di yëgle ni kon gannaaw ñetti guddi yi nga xamante ne def na ko ca garda bi moom Samuel saar ci boppam tey ji la war a jano ak procureur ñiy jano ak procureur ba noppi ñu ngi ci la quotidien le quotidien muy Moustapha Diakhaté ak Adama Gueye yéenekaay bi di ñu xamal ni kon parke bi daal balancé na yëf yi ndax moom Moustapha Diakhaté dut nañ ko ab mandat de dépôt alxames gi lañ ko war a atte Adama Gueye mi ñu bàyyi waaye teewul moom tamit ajuma daañu ko atte ñoom ni bokk na ci diffusion de fausses nouvelles ak ay mbir yi nga xamante ne mën naa indi ñàkk kaaraange ci réew mi moo tax opposition bi ci biir yéenekaay bi di ko ŋàññ ñu jàpp ne daal nguur gi ma ngay jéggi li ñu duppee ligne rouge li yamba am les échos ma ngay xamle ni Moustapha Diakhaté daal yóbbu nañ ko ca prison waaye Adama gay bàyyi nañ ko tey war nañ ko atte ajuma ji ñu dëgmal ngir gën a leeral ay mbiram li ñu war a leeral ci las quotidien mooy statut chef de l'opposition ndax yéenekaay bi nee na léegi jot na majorité bu ñu duggee nag ci fukk ak juróomeelu législature bi assemblée nationale moo war a jibbal débat bi bu ko defee ñu daal di ciy am ab loi bu leeral yëfi gannaaw ba ñu ko dugalee ci constitution bu Sénégal Sénégal di waaj a dugg ci juróom-ñett fukkeelu anniversaire Thiaroye 44 El Hadj Mansour Ndiaye ci réew mi quotidien mi ci def ab jàngat ne jot na nag sunu réew dal di weesu devoir mémorial bi ngir càmbaraat loolee nga xamante ne amoon na ci camp Thiaroye situé responsabilité dëgg ngir yoon daal di mën a jip bu ko defee mën a féete boor enquête mi xëy tamit ci boom bi xewoon ca caaro yi ne ba léegi nag Afrique rawatina Sénégal ma ngay xaar fi dëgg bi féete yéene kaa bi di wax ci wàllub souveraineté mémorial li ñu war a xoolaat relation diggante France ak Sénégal ci biir yéene kaay bi historien bi di Mansour Aw di kat na ci boobule boom nga xamante ne amoon na ca caaro yi 44 ak li nga xamante ne ba fi ñu toll moom la ñu tubaab yi doon jéem a gëmloo ci réew mi sport Max Mbargane gëm ni Siteu war na a